Bonjour c'est qui ça leen jàmm la bu loolu weesoo damay ñaan yàlla yàlla na jàmm ci réew mi ana ki ko wax ndaxte Sénégal fii jàmm rek moo fi xaj xale ngeen baal seen baay ak ndaxte fan yii ñu génn de Sénégal comme année bi indépendance am nga ni yam télé ñoo bokk doon télé yëpp article 54. baax lii kenn mësu koo gis waaye. mësu fee am moom wax dëgg yàlla. moo tax may laaj. looy laaj. li may laaj mooy dossier Sonko ak Adji Sarr bi fan la tollati woon sax. dossier bi dafa vide. kon dossier bi dafa vide de. dafa vide vide. Ah, kon boog vide plus vide. dara newu ci dossier bi. man découragé naa nag sama man de damaa rus. dossier bu dara nekkul sax daa neexut a débaawee dara. dëgg du romb nopp. bu loolu weesoo au suivant na ki ñëw. naan dof yi nay sànn naan nañ seen yóor gi. i kii la maître. wa mom la dama la ko ñaan nag bala ñoo commencé bay def dara maître dama la nga fofu sa gémmiñ nga bala nga ma sapeur gémmiñ gi doon wax jamm mom mak sax ñemewu ko ma xale bu ndaw li nga wax mooy dëgg waaw moo laa dañoo sétan maître bala ñoo commencé sax koku dama ko jomb tok di jël 1 minute nan dama koy sétan ko xamne farul fi farul fe da neex ta tok di sétan kat way sétan lañ koy tuddé bu baba a'udhu billahi mina seytaani rajim ya, astaghfirullah ay way man téma wote ndawtal général ñëpp génn li ma bëgg wax ma wax motam nak maître def lenn wala nga fi wax lenn jox sa matricule ba paré chef de parti. waaw. présidentiable. waaw. candidat à la présidentielle. ancien ministre. député pendant 10 ans. waaw. avocat international. waaw. le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. Mouni, le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. lu wax le meilleur candidat pour 2024 pour tous les Sénégalais. li nga wax ni te fete fel pour mom wax na khalatam ni ba pare waye gaay du la apprécier ki de bu fekke ne waxam ji moo tax mu ne day am ay commentaire ma xamne du ci dal de commentaire yu négatif ngay am nak waxe dof la nga fex <laughs> man de ci metti El Hadji rek la gis bu defé vidéo ba pare sénégalais du ko rimbu di la xam ni mana commentaire bo ubi ñu dag manam bu nekké 1000 commentaire bu ubi ñu dag bu ubi ñu dag té taxul mu décourager bo lii réseaux yi ñu ngi bay sagay xam na kon yow kon fo nga tollu ku tëbu teg rek jox na moroomam. xam naa ne man ma costume costume rafet bu jar ay millions cravate nice gaari sama oto bu neex. nga ne. mais nag te jàpp la amul sens. dëgg du rombi nopp. waa biir bi <laughs> mu mel ne xarit cogal yooyu noonu yu sori passe période tabaski. yaa ñàkk fayda. maa tay de. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. loolu bu ñu waxaanee rek maître génn di saaga nit ñi. moom pas. fii kenn kenn kenn du nuyu sax ay dëkkandoom. bu duggee ci koñ bi fii du nuyoo vraiment na nuyoo na nuyoo ñun fii la ñu dëkk koñ baax yaay fii Maristes lañ dëkk. xoolal ma lii rek nga foog ne ku respecté wut ay dëkkandoom di nga respecté nit ñi. moom ak yaaxal. sama jabar Yacine Fall ak man ñu ngi leen di gërëm amuñu seen fay. waaw lan moo fi indi di sant say jabar tamit. ndax day yéen a gaaw fay taal bi ba musiba bi wàññeeku. te yéen a ngi dégg de yow de bu nekk toon say dëkkandoo sa kër gi jeex takk takk takk te santoo takk say jabar te kon ay mbaam si dëkk bi sax moo ko gën lafañ borom mbaam lay faral <laughs> mais moom lan moo manqué si kër gi sax lekk ñam ya fa nekkoon waaw taal damm damm store yi waaw toj rido yi da xaxat rideau yi damm damm photo yi waaw sàcc vaisselle bi ñii sàcc ay kaas mu ni ñii sàcc ay kaas kaasu attaaya la wala kaasu ndekkee kaay kaasu ndekki eh, zal zal kaasu attaaya la kaasu attaaya la mi ngi nii kérok bi may daw nekk te la dugg sama biir dal bi après finalement si laa ko xol gis ko. indi indi ma jox ko kaasam. kas bay ni nii atay dong la. ndaxte bu ñu ko joxul kaas bi dina ko joy ren ba déwén. wax rek ak leelam bi ki kay da city feebar bu bon la yor muy ndoxum city ana ay wax day jeex. kon maître kon lu tax gi xaj kon ndoxum city la. ndoxum city ko def moom. <laughs> Eh, astaghfirullah <laughs> mo wax mu nan nak day porte plainte. plainte bi nak bin naa ko ba pare. wa maître mi kan la wara porte plainte sax. Ousmane Sonko directement la porte plainte. waa kii lan la ko Ousmane Sonko def ba mu naan day porte plainte. ñu ngi xaar plainte bi fu muy mujjee. xanaa kay ñu jàppale ko. ñu wàcc ci terrain bi rek jàppale waat Sonko. bu leen fàtte ne maître ndoxum siti nag moo koy wax loo. man daal je suis peur daal. acca <laughs> maître waxal sa mot de la fin man damay tëj. yàlla xam na kii falu ëllëg démb yàlla pare na démb tey soog a ñëw. yow laay xaar de. man dama gëm ni may falu 2024 incha allah rabi. man dama gëm ni may falu 2024 incha allah waa maître mii de nee na dafa gëm ne moom mooy falu 2024. <laughs> mag mu rey moom yàlla na ci yàlla musal. waa maître mii kan la yab. moom est-ce que yabul sénégalais yi sax. yow de maître boo yaakaaree ne. Aïssatou Ndiaye. 2000. nii lay jëlee réew mi dina leer. may wax mu ne xew xew waral di lewetal kanam kanam gi di mel ni bu dagg. sa këram gi ne mbàq mbàqaaral mel ni ba tey sa mbëng-mbëng bisina def naar gaay waaw foppal sa gémmiñ gi nag bala ñoo tàggatoo man de lii laa wax mbaa yéen loolu ngeen wax man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu bu ko defee nag ñu bàyyi maam mu ñaan ñu tëj ba beneen yoon amiin ولا إله إلا الله